nan nan te teeru saa bu safar gi ñëwee nan kay gàttalu ànd ak moom gunge ko si ñab laaj loolu la waxoon bu safar gi ñëwee nan koy gàttalu ànd ak moom ba pare wëlbati ko gunge ko noonu la ko sëñ Abdoulaye wax ni comme képp koo xam ne yaa ngi dundal safar gi ne la wóor la ngay def bu lëmbutu ko nan ko gën bu baax di ko dundal nii te xam ne képp ku ko dundal ni ko ni ko sëriñ bi bëggee ne la wóor nañ ci tey day gërëm ak sëñ te ngërëmal sëñ Tuubaa kat bépp murit moom la war a sàkk fu mu mën di toll bépp murit lu muy yëngatu ngërëmal sëñ Tuubaa la ci war a sàkk ndax ngërëmal ko am képp ko am ngërëmal sëñ Tuubaa am nga ngërëmal te ku ko am ngërëmal yonent bi am nga ngërëmal yàlla te jullit yëpp ngërëmal yàlla la ñuy kon bis bis bii weer wii nañ ci sàkk ngërëmal sëñ Tuubaa te xam ne mooy suñu njariñ adduna suñu njariñal adduna di suñu njariñal alaxira beneen bi ci topp li ci sëñ Tuubaa wax